yaa naan ma ay waay sama goro bi boo ñëwee ba ñu commencé nangam ak nangam mm-hmm. Youssou ma koy teral ñu am de bon relation pour pour wax prospère rek papa deux secondes bi mu naan da ngay sekk ak nit ñi jàmm ñëw ba ci biir kër gi di fa dund tyran pourtant am na ñu lay wan kanam bu rafet ba nga dugg ci biir kër gi ñu dindi seen i masque teg mooy maag Safia ñi ngi ci jàmm parce que maa ngeeg frère am di ko teral ñu sekk jàmm ma dugg si mu mel ni du Safia Jaata bi ma xamoon def ma ennemi donc dafa am ñoo xam ne faal may ma deux secondes dañoo ñemee soppi jikko te loolu baaxul ci ñi nga xamante ni doomu aadama baaxul ci jikkoy nit il faudra que ñi nekk ci kër gi mën a nekk ay doomu aadama yoo xam ne muy avant le mariage ou après le mariage dañuy entretenir de très bonnes relation ku góor ki day nekk un homme solitaire dem yoonam ñu ne ku jigéen ki la yaa a des hommes ci seen biir kër avant ñuy am soxna dunduñu sax en famille la séparation a été déjà dans la maison bu ñu wàccee ñu ngi seen biir nekk deux secondes papa baal ma ak Fall xoolal waaw kii bi maanaam ki nga xam ne doom koo tere hmm. ne ko doo jël kii doo ko takk hmm. Hmm. doo takk ndaw si ah. mbaa mi amul lu ci ñuul wala gàkk gàkk waaw bu amee lu ci ñuul ñu wax ko wante ni ñuy bañ mooy nga teg ko ci sa nafsu rek mooy bëggoo ma safiyaa nga bëgg nga bëgg mu takk safiyaa nga may nga may laaj dama li la mag tere yëg nga yëg ca kaw gisoo ko mu toog ci suuf di ko gis yow yaa ngi ca njob la mu gën waaw waaw léegi ndax ndax gàkk gàkk amu ca doo jël diw nii doo ko jël doo jël diw nii d'accord jël diw waaw waaw yàgg naa am de jël diw doo jël diw doo jël diw doo diw doo diw teguñu leen wegguñu leen woon ci kër gi bu ñu liggéey nañ wàcc nañ tëju nañ ci benn néeg ah, tëdd kenn faalewu leen ñu commencé seen wërsëg commencé yaatu rek famille bi commencé intéressé wu mu am jabaram dem ñu ne daa war fekk ne déjà ca biir kër bi mu yeewoo moom ku góor gi amuloon sax considération bi war soit liir dafa ñàkk wala teguñu ko wala wegguñu ko fenn bu demoon suba ñu ne soxna si la alors que c'est une décision qu'il a pris depuis bi muy nekk xale ndax manque de considération bi amoon ci biir kër foofu laa imprimé soo bul tontu damay dem fee mënoon naa dem kër gi am na nun ko téye woon ci kër gi <laughs> noonu nu ko téye woon ci kër gi dem na ba sunu borom soppi jamono vengeance vengeance nee na vengeance loolu nga koy digal nga ne daa war a dem nga ne daa war a dem yow xaaral ba ñuy ñëw yow ak kii ak kii négal ba ñuy ñëw ragaluñu loolu kay toog Youssou xam naa ragal ñu bàyyi la nga ko négal ba ñuy ñëw verbe bu dër bi la de verbe bu dër bi waaw verbe bu dër bi niroo teen ah? waaw man man man man rek dafa am ñaari point yu am importance yoo wax dinaa ci ñëw après mais man li may inquiété mooy wayjur bu jigéen bi am doomam bu jigéen am doomam bu góor souvent buy ñaanal ku jigéen ki daka naan yàlla nga am jëkkër ju la yor. takk la yóbbu la ci appartement. souvent bu ñuy ñaanal sunu sunu mag jigéen bu ñuy ñaanal sunu mag jigéen yàlla nga am mën a yor. yóbbu la ci appartement yóbbu la ci appartement yóbbu la ci appartement. mais poste de nouveau né. non non non yàlla mën a yor la ñuy wax. dañ ci yokkul ci bokkul. waaw je suis désolé. mais yóbbu la ci appartement yow di nga nekk kër appartement yal na la yàlla mën a waxaale ci ngor déedéet ku la mën a yor la ñu ku la mën a yor ku la mën a yor suñu société mooy ku la dugal ci village dëgg la appartement utal la ay jànk utal la chauffeur mooy ku la mën a yor suñu ah. société non non non mooy ku la mën a yor waxaale bi ci des mooy nga am nga naan daal yàlla nga mais yéen ñaar yéen ñaar tamit nag s'il vous plaît may ñu ñu wax dama ci koy wax may ma may ma may ma yow papa eh, eh, eh, papa soso affaire soso yi na ngeen na fexe nee na appartement doon koy waxaale ci sëy vraiment xalaat da ngay doon góor sa yaay ne la yàlla nga gaaw indil ma ab soxna mu ñëw ci kër gi d'accord comprendre naa ko parce que dañuy wax doom bu jigéen ndeyam juru ko day sëy tôt ku góor ki moo war a indi mais bu fekkee ne yow ku góor ki xam nga ne ki la jabootee ki la jur muy sa jur bu jigéen leer na ne yàlla ne tàng na naqari dina deret gaaw na mer bëri na lu muy seetlu bëri na lu muy lijjanti des fois la séparation c'est mieux pour c'est la meilleure solution pour yow sa yaay ak pour sa soxna xam nga li tax di nga mën a yar say doom ni nga leen mëne doo joteeg sa yaay <laughs> ndax li ñu naan la satisfaction morale mooy la moo gën la satisfaction matérielle yow doom mën ngaa nekk ca àll ba <laughs> terewut tu as à mesure yaa ngi leen di toppatoo yaa ngi joxe lekk yaa ngi joxe naan mais sa soxna moo war a jural njaboot moom nga war a moom nga war a fondel famille te njaboot yooyu bëggoo ñu grandir ci yenn environnement yi yan environnement la da ngay am sa frère jabaram a ngi ci kër gi mhm. sa beneen frère sa cousin jabaram a ngi ci kër gi maanaam les grandes familles bu yi ñu bokk kër yooyee dinañ suul dinañ sunguf li nga doon wax léegi dinañu reen dinañ yaa ko wax yaa ko wax de lébu bi yow yaa nekk sunu. yaa ko wax de gisuma lébu bi sunu. gisu yow yaa gis lébu bi sunu. waaw yow yaa gis tey wax la de. yaa ne dans les grandes familles lébu. moom moo ne dans les moom moo ne dans les grandes familles lébu. na assumer li muy wax. c'est pas vrai. les lébu vont toujours être généreux. humble sage. nga xam ne am na tey ñoo ah, xam ne ñu bari oh, dëkk nu fii ci réew mi bitim réew nañ jógee seen baay da leen naan su ngeen demee Ndakaaru wala Caaroy Géej wala teeru sàngam ci diw ngeen nekk ca moom su mbaal mi demee su mbaalee ba ñëw nar bi. yow li ngay wax yow li ngay wax ak waa kër gi ak bokk waaye lébu bi suul maa la gën a dëkk ci këru lébu maa la gën doon a doon lébu ak Bamba maa ko gën a doon lébu. lat sukaa bi mooy sama maam. mënoo maa jaxaseeg lébu manel Kodou Ngoy mooy sama maam. manel Kodou Ngoy Fatma Binta Fatma Binta Yacine Ndoumbe Yacine Ndoumbe Ndoumbe jenn mi ngi jógee diggante Ndukura Gandigal Ngaparu tubaab jalaaw ak sali soo demee yumen gi nu wax waaw wax kan bëgguma koo xam sama bopp laa xam lébu pire laa sama ay impagne sëy bu Samba ngi nii nekkoon secrétaire bu Macky Sall barke borom Touba Sambee nu yof la dëkk waaw sama ay mbokk ngi nii Astou Fall ngi nii soo demee payeen da ko fay fekk ak ñoom day Fatou Fall mhm. waaw njallu pay mooy seen maam mi ngi nii sama nijaay Alioune Fall lañ jur. na ci ay lébu piir nañu. sama nijaay Omar Bayo Fall moom moo ko jur. mi ngi dëkk ci Ndoyeen gii. jaraaf Youssou Ndour mooy nijaay. mën piir laa. maa la gën di lébu fuuf. mën naa yeggali. barke borom Tuubaa Mbàkke. munoo dara. maa ko gën a nekk lébu. yow maa ko gën a nekk lébu. da ngay ne ci kër. waaw. nekk fa ay. delloo ma benn avance. man dès cinq ans dès cinq ñu ngi lay utal ay rival. <laughs> ñu ngi ah, ñu ngi dindi sa confiance en soi. naan dooni gas ñu ngi lay tëkkaat nag koo xam ne yemu leen niveau d' intelligence. ngeen di bokk classe wala ngeen bokk école wala ngeen tolloo niveau. Mhm. kii jël premier nga jël cinquième. waaw bu nu lay xas dan naan xanaa gisoo doomu jiw ji. Mhm. xooloo ni say morom mel. Mhm. xooloo ni diw mel. lu tax diw am li te amuloo loola. te yàlla dafa bind te yemalewul. kii mën na laa gën a muus tey bu subaa nga gën koo muus comme on au fil des années l'intelligence de l'enfant s'éveille kii sixième kii préscolaire kii fa ca des ñu ngi sunguf di reen ci kër gi xam na li may wax xaw ma ko de. ñu ngi saafara bàyyi ma xaw ma ko non non non musuma gis lébu bi sunguftu ak di rent musuma ko gis. wax leen ci musuma ko gis musuma ko gis man gisuma kuy liggéey man gisuma ko gisuma ko dama ko gisul yow boo yow yaa ngi loolu laa wallaahi barka borom tubaab waxuma loolu ah loolu laa man naa ko moom boo ko waxee kii ma moo ne moo ne sama bopp yow yaa ko wax waaye li ma wax rek maa la gën di lébu rek maa la gën di lébu rek sama ay sang ngi nii ñoom astu faale ngi ni seen ndey ngi dëkk ndeyeen gii ñoom astu faale ngi ni seen ndey ngi dëkk ci sàmbe nu ngor gii lébu laa de barke borom Tuubaa lébu fii nii sax rek laa bëgg waaw waaw day yaxara jaar nee na yow rek la bëgg wallaahi nee na nga la yuppa nga xoggali waaw kay Euh, mu am yu bari yu am ci kër yi des fois beroog sa njaboot yara leen ni nga ko bëgg ànd ak sa soxna dem pour daw coow daw yu sew bëgg yar sa njaboot selon toi parce bokk ndey ak baay bokk fu ñu tëdd kese la bu ñu xëyee ku ne day dem ah. ku ne am nga sa personnalité ku ne am nga loo bëgg say doom ne ci ku ne am nga loo bëgg def ci sa ay doom mën nga bokk ak Safia ndey ak baay Safia lii la gëm yow lii nga gëm lii nga bëgg a yare say doom nii nga bëgg a yare keneen hmm. bàjjen bi ci k gi mu ngi ci kër gi toog. doom ju romb mu ne la. xoolal doomi diw ji. ku romb mu ne la xanaa gisoo doomi sa papa diw ji xanaa gisoo eh, doomi sa yaay diw ji yow xale bi nga màgg ci environnement yooyu noonu. dégg ko dootoo gëm sa bopp. ndax da ngay yaakaar ne li sa fi man mënuma ko. man kat maax ñëpp ñoo maase ñoo bokk ay at. tout à fait ñu ngi am premier ñu ngi sol yére rafet man mënuma ko am mu am lu bari loo wàññi ci yow père man. su ma ko yàlla mën loowee dama la koy wax maa ngi toog à la télévision su ma ko yàlla mën loowee samay njaboot sama kër laa leen di yare waaw da ngay génn du ma leen boole kenn di leen yar lu tax doo leen boole sa yaay sa yaay Safia Safia bàyyi sama yaay déet dam lay laaj sama yaay moom xam na ne sama xarit non nooy def sa yaay xam na nu ne man ah, sama xarit yaay la waaw daal daal man doomu yaay la c'est quoi le problème da ngay yóbbaale sa yaay dama ne lan moo la tere andi sa jabar ci wetu mère jatu pay pour éviter des problèmes xam nga lu tax ah. ki may takk ah. xam naa ko ci jëmm. waaw xam ko aslëf ci jikko. waaye jigéen dafa lëndëm. waaw xam naa sama yaay. waaw lu ko metti yomb na. waaw su ma leen boolee ci kër. waaw kële mën naa yee jikko joo xam ne dina ma tàggaleeg sama yaay mbaa mu tàggale moom soxna si. ku ne mënoo indi koo xam ne loo ko wax mu topp ko. waaye yow Seydou Sow Sansa yaa ko waxoon fii. ki may takk dama ko xam. dama ne yow ki xam. dama ne ki may takk dama xam. dama ne dama xam ay jikkoom ki may takk dama dama la mën a waatal ne la nii la mel. mais nag nga làmbatu ba keroon ngay daj nga làmbatu ba keroon ngay daj. amul mais indi koo xam ne amul mais de. mais mais su nanguwul nga ba ko mu dem. ba ko mu dem. lu tax ma koy ba mu dem te ma bëgg ko. nanguwul li nga bëgg. lu tax ma koy ba te ma bëgg ko. nanguwul li mu toog sa ndey. après sëy mu ne la ko mu def am na ay défaut man mu ma ko def dama bëgg mu toog sama ndey mënul toog sama ndey amal ma libéré la yow père yow père ma bëgg la bëgg ne la laaj sama ndey dafa ne xanaa bëggoo ko ma bëgg la ba jëndee la sama ndey dama ne la man am naa ay défaut te sama ndey du ma ko weccoo ak soxna sama soxna mu ngi may muñal ay défaut man ma muñal ko ay sam ñu ànd muñalante ko suñu kër ba kon na la muñal sa wetu ndey na la ko muñal déedéet xam nga la moo tax na la muñal sa ma mu muñal bañu koo na toog waaye moom est-ce que sama ndey dina ko muñal muñal ay défaut saw yoon ah kay sans fi indi nga bàyyi rek ah kay naa ko fi indi mu nekk bàyyi rek mooy irresponsabilité yow da ngaa xam sa ndey lu mu def irresponsabilité da ngaa xam sa ndey lu mu def fekk sama ndey daj sama jabar da ko war a daj lu tax lan moo ci saw yow lu tax sama jabar di daj sama ndey daj na ko muñ lu tax sama jabar di daj li sama ah, ndey daj da ngaa bëgg mu neex mu ñëw waaw maa ko takk jënd ko ci kër andi ko ci kër dama koy dundal mu neex daa war a fekk lu neex lay dund ah, maa ko takk négal ba ni ndax loolu laa bëgg samay jigéen am ko loolu laa bëgg samay rak am ko loolu laa bëgg samay mag am ko ku ma takk loolu laa lay defal jox ko man maay wax pareegu ma daane la guma waaw da ngay gaaw man maay wax daane la guma gaaw man dootu wax ak yow fii ak munoo wax ak man père parce que li may wax ñii ñooy wax ak yow ñi ngi ñëw ñii di wax ak man xam nañu li may wax dama ne pour trouver une solution damay beroog xam nañ ko mais duñ ko jëfee de damay beroog sama njaboot yar leen demal éviter à ma mère des problèmes parce que ki may takk mënuma ko cerner à cent pour cent xamuma défaut yi ne ci moom. damay éviter à ma mère. demain sama jabar ko loo xam ne déception lay. ut ci moom séparation am. waaw j'évite à ma femme de supporter certaines humeurs. yoo xamante ni xëy na yarewuñu ko ko. certaines humeurs ko ko am na noo xamante ne nii noo xamante ne nii. bëgg naa mu mel ko mais munu ko ni mel dama ko koy muñal ay défaut la ci moom. ñu eh. ànd beru ma bàyyi sama yaay di ko toppatoo weer ne ma jox ko alal ju bari mu dundu solo ko mbubu yu rafet. doo ko jox dara boole ko di ko seet yow mi sa soxna su la nee doo ko ko jox doo ko ko jox. jërëjëf euh, Ben Benoît ñu bàyyi la kàddu gi numéro yaa ngi noonu affiché wu bas de donc tout di ngeen mën di woote papa. respire maa ngi ñëw ci yow. waaw Safia bàyyi ma bul ma yërëm. man dama yaakaar ne. <laughs> bul ma yërëm bàyyi ma dama Safia. kon ma jox la dama yaakaar sa suñu société dafa am benn façon pensée boo xam ne dafa tàllal lal bi déglu ñu wax sañu fi nga ñuy wax ay bugaat ay bugaat dafa dugal ci oto boo dugal ci oto filmé eh, bi eh, filmé nga oto bi eh, filmé ci oto la ma bugaan dugal barka borom toi ne naaj bu don léegi lal bi daal di xàttal bi ko mu doon ab salon ak salle de réunion ci biir ma wax mu ne ma xëttal frigo bi ma ne nii benn bouton frigo bi daw génn ba tegu samay ëpp mm. barka borom Tuubaa Mbàkke du dëgg. waaw mu jox ma fukk junni ñuy daw siif ko. dëgg la waaw billaahi wallaahi fukki junni la ma jox saa ñu daw ki daal di may siif ko. Ah, mu taal oto bi. daal di may ne seen TV sa kër la yow ko moom dara jëy Ahmadou Bamba lii la ma wax ne ma ce n'est pas ni pour Bougane ni pour personne mais yow moom. ma ne ah mu ne ma maa ngi ñëw ci ah, yow Bougane xam na xam naa. yow terewul daw liggéey. ma liggéey la ma bàyyi leen may leen ma ah, lan moo la yaram bee sutante s'il te plaît lan moo la daloon. père may gone dafa bëgg ma wax musiba. non man bëgguma wax musiba waxal lan moo la teree loolu la loolu la bëgg waaw lan moo la teree ñëw loolu la xam naa li nga bëgg. lan moo la teree li ma bëggaan wax laay def duma la ko duma la ko. lan moo la teree liggéey kii dafa bëgg maanaam.